leen dugalal benn xibaar bu gàtt rek xibaar bi mi ngi am ci le 18 ci weer wi ñu nekk muy diggante OTAN ak Russie yi muy euh, muy diggante muy diggante euh, OTAN ak waaw xam nga OTAN ak Russie yi doon nañu am waxtaan wu dox seen diggante ci jamono yile passé woon ci li nga xam ne moom lañ seqoon ci wàllu gànnaay yi ak man ko aar ba jàmm mën a am ci àddina bi waaye dañ ci amoon ak juyoo bari si génn ci moom na ne si signéti ma dara dem këram toog léegi nag euh, le 18 ci weer wii nu nekk ci la euh, ci la otaan jóg muy naato daal naawal juróom ñett euh, maanaam daal di naawal ñetti ropilaani B52 ak juróom ñeent fukk ak ñetti ropilaan de guerre tiim fanweeri dëkk yi bokk ci otaan ne loolu avertissement la ci e, université ci riis yi pour xamal ko ne otaan moom mën nañoo aar seen bopp aar seen jaw ah, yàlla na yàlla def nag jàmm ndax diggante riis daal ak Amérique ak ñi mu boot ah, xam naa ne bu yàlla alak jamono mën na ko jaare ci ñoom ndax riis yi Chine mi ngi ci ginnaawam riis yi Corée du Nord ngi ci ginnaawam riis yi Iran ma nga fa Russie ñu bare nga ca ginnaawam Amérique itam mi ngi ànd ak OTAN alamul islam yi nag demuñu cëng di ko ñu jama dañuy ndoxum gaal ma wil mi wal ma la ñuy def waaye xam naa ne dem ba eh, samp woon seen mbooloom bopp daal li li Erdogan di woote moo gën a noppale ndax boo gisee àddina bi ba léegi balaas bi cooli ne comboy daf da da balaas bi daf ñaari nit dañ ko seq ñaari mbooloo dañ ko seq riis yi daf ko séq ak Amérique Amérique dajale mbooloo ànd ak moom riis yi tamit ànd na ak mbooloo moo xam ne ndaxam réew yooyu bari nañu lool ndax fanweeri réew yi bokk ci otaan laa leen wax waaye daanaka nag fanweeri yëpp boo leen boolee leen Chine bëgg leen a ëpp <laughs> te Chine mel na réew la te moom riis yi ñoo ànd moo tax li ma réew yi ci nax nit ñi waaye armée yu bon yi moo ci nax nit ñi. te otaan bu jàkkaarloog riche siin nekk ca ginnaaw ànd ak riche ak Corée du ànd ak riche ah xam naa ne bu ñu raafut addina genn wàll gi mën nañ ko raaf yan yàlla defal ñu jàmm defal ñu njub defal lu mucc sànni nañ leen caabi boobu si ngeen ko bësee da ngeen gis li may wax lépp ci gàttal ndax damaa def xibaar bu gàtt ci gàttal rek pour xamal lii ne ñoo ngi topp xibaar dañ ko waxul waaye tey incha allah danañ tàmbalee dugalaat xibaar yi ndànk par ndànk. tey nag waxuñu ci alamul islaam yi waaye ñoo ngi wax ci otaan ak riche yi daje woon nañ fi ab daje daje booba sottiwul lañ doon signé riche yi génn ci dem toog këram riche nag da caa dem toog këram waa Amérique gi ak otaan nag ñoom xam naa ne ah naawal nañ daal ñetti B52 ak juróom-ñeent fukk ak ñetti roppalaan de guerre tiim fanweeri dëkk ci yu bokk ci otaan di ko biiw ah di won riis yi ne ñun ragal lu ñu riis yi mën nañoo aar suñu bopp nun nag yàlla nañu yàlla sàmm yàq nu fa làq nu fa yàq yëggut yal na yàlla musal nu ci diggante pexey noonu bu yàlla bu munte ñàkk suñuy noon yal nañ daje te jeex te ñun ñu mucc